continué ñoo njabootam gi njabootam gi tam waxtaan nañ wax nañ ñu seen mbégte si affaire si ah, yàlla def na nag ñu tombé nag ah, julli tisbaar bi fii so li ñoo def rek mooy dañoo dem sana jiite ñu ñu julli tisbaar suñ fa jógee rek ñu waxtaanee ñi nga xam ne ñoo dee ñëw si juma bi ñi dee julli si juma bi rek gaañ wax ñu ñoom tam lan lañ fii si li nga xam ne loolu la Africell def muy jël seen imam bi kii di Sana Baro di koy yóbbu pour mu dem aji ji Màkka at bi incha allah golle jaaɗi ɗon to sen fanan tabarakallah nte biñin kibaro nga ñu moy salola alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin mbe allah subhanahu wa ta'ala mariya la man so me yalon ka telen kuluda ay mbulandi ñi nema ko ko no ñi nema karba kata ngo ko no ñi men kata makata mu fulandi ñolam ha mu fulandi ñolam mata musanata nta mu kun sa ñolam mata a kontano warta mbula jusula warta mbulu alama ita kaira la aina kaira la nin kaira tara ya tul min fana ya wulindi fana alama nal sola sima ya la ni jata kende ya nin harge sirimba ani laban ku nyinya ni sutura ni tanko alama ale wodi sun karo barajo alama ale ya din nalu la palaso alama ale ya yirwande babali alama nasola sima ya la alama nasola jata kende ala kila hormo na alqur'ano hormo mbani mfa hormo to allahumma salo hormo nyinde alqur'ano dingolam alqur'an awuluta alqur'ano lakuno awuluta majliso lakono afa ya londi nin arkurano lela a keɓalu nin arkurano lela woto nema o nema findita ena arkurano kono a findita mego mere ndina ala so baraji kaali ye ala man naali sawol kelali ala man naali sola kayrala ala man naali sola fonninkeya kuntuña ala ma sone yalali ye ala kana kuntu siiɗo yani jankar jawnin laɓan jaw yala anin sutura nin tanko ala ma dilali kila kano kamal arkurano kormo makani madina kormo sali ala muhammad samta karim yama ala baraka ñu ngi ndokkel alaaji sana baro Euh, di ndokkeel euh, suufu biir kaama yëpp ndax li teraanga ji ñoom ñoo ko moom euh, Africell gestu leen rek di leen delloo njukkal di leen jaajëfalaat bu baax baax di ñaan rek sana alaaji sana baro incha allahu na ko bu mu fàtte boppam ci ñaan bu mu fàtte réew mi waaye ñu ngi koy dénk yi tamit na doon lay ñaanal compagnie bii di Africell rawatina ci xaramayni sharifayni boobu mu jëm nga xam ne lu fa jullit ñaan yàlla ci lu baax yàlla defal ko ko ñi ko dimbale ba yóbbu ko foofu defal ko teraanga ji mu toll toll ji nii ñu ngi ñaan bu demee foofu bu mu leen fàtte ci ñaan mm-hmm. ndax ñaan mooy ngànnaay jërëjëf jërëjëf imam ñu rafetlu amin ah, sa kàddu yu rafet yooyu noonu rek daanaka foofu lañ ñoo amin ah, tëjee programme bi tey ah, ba beneen bés bu ay bi ñëw ñu tudd leen dox daje mhm. parce que nañ fi del si waat indil leen yeneen programme yi nga xam ne moom lañ jëlee gox yi nii dinañ dem dex gi su yàlla àndee indil leen ñi ya, nga xam ne ñoom lañ fa taane comme eh, niñ ko defee rek sa gannaaw rek moom la ñoo dellu defaat ko fii ni rek leen ñoo foofu noonu pour yóbbu leen màkka mhm. si turi ñëpp ñoo xam ne ñu ngi liggéey officiel borom kër gi dooree ko si borom kër gi ak ñëpp ñoo xam ne ñu fa liggéey mhm. ñu leen di leen ñaan ñu leen di ñaanal jàmm mhm. yéen tam ngeen di ñaanal jàmm ba beneen bés bu ay sus yàlla àndee ñuy ñaan rek yàlla nangu suñu koor bijandro yaafisal layno sobilde aɓe ittoɗima sili fof baccine yaalen afisal ye kuule bonde min tomo kolore crédit a ah, fo mo kukudole to ha isi crédit o ɗon tono afrisel bulla aɗa yite feñjola e AfriCell Cholera Credit. Now, you can borrow up to $50 with the AfriCell Cholera Credit. If you have been using the same AfriCell number for a period of one year or more, you become eligible to borrow Cholera Credit for every AfriCell loyal year and for no extra cost. To activate your Cholera Credit and know how much credit you can borrow, simply send a blank SMS to 152. You ran out of credit? Worry no more. With the AfriCell Cholera Credit, you can make calls even when you don't have any butut. in in your account. And the next time you recharge your line, you will return your cholera credit with no extra cost. Keep using the same AfriCell number and your cholera credit will grow every year. AfriCell Cholera Credit only on your AfriCell line. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan am bëkté lew nak di leen dalal fi ci sen télévision muy GRTS ah, té nak ñu fas yéene dalal nak ci wéru si korité bu ñu nekk ni ah, muy nak korité gi comme nuñ ko xamé rek julli nañ ba pare way nak ñuy def moy nek di leen nuyu si korité bi nga xamné ah, mom lañ ak wéru koor wi di ñaan yalla rek mu nangul ñu suñu koor ak tamit ci fété bi nga xamné mom lañuy def muy korité gi ni té nak GRTS fas yéene indil programme bi nga xamné mom lañu oyé korité spécial ngeen ak sen xarit activité yi waaye nag ci biir programme yi comme yi nag xam ne ñooy togg añ yi nga xam ne moom lañ doon defar naka lañ koy defaree ah, moom nag doon na loo xam ne lu am solo la ah, parce que réerewut mbir ne nag ah, li nga xam ne mooy añ julli niñ ko xamee rek julli moom du mat te fekk añ yi amut mu nekk na loo xam ne suñu yaay yi ak ñi nga xam ne ñooy nekk ci biir kër gi lu ñu ittiloo wala lool torop muy fii ci réew mi muy yi ne julli gi du am te añi demut muy lokk loo xam ne lu am solo la waaye nag ci biir programme bi dinañ ubbi leen line si si kanam tuuti ah, nag si 437 3910 ak 437 5905 ah, seen xarit la i bi tey mbokk yi ah, nu ñuy def rek mooy fi mu nekk nii démb ci julli gi demoon nañ nag dugg ay kër yoo xam ne am na ñu waxtaanoon benn ci kër yi nga xam ne fa lañ demoon duma leen wax kan la nag waaye nu def mooy ànd ak ki nga xam ne moom lañ seeti woon ci si seen korité spécial waaw mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon rek julli gi dafa am solo lool waaye am na loo xam ne lu def lu def gannaaw Euh, suicide mu nekk loo xam ne nag jigéen ñi itteeloo nañ ko lool muy nag añu julli yi añu julli yi nekk na loo xam ne du ñàkk ci benn kër si julli bi fii si réew mi euh, moo tax nag tey ñu war a wóor nag seet ñi nga xam ne ñoo jigéen ñi nekk ci réew mi euh, ñoom nag wax ñu seen fu ñu toll si seen togg añi julli ki fi nekkal nag fekk ko ci waañam mooy anti matamata muy président yi women's federation bi bu Gambia anti mata ñu ngi la fekk ci sa biir waañ naka ngay def ak sa togg añ tey ci julli alhamdulilah rabbil alamin di sant yàlla rek wax ne alhamdulilah rabbil alamin weeri bi commencé nañ ko jeex ñu ngi toog a añ yi weeri um, koor bi moom xam nga su jeexee sax um, joolaay ak séeréer yi xam naa fi mu nii ñu ngi yaakamti pour añ yi pare uh, ñu ngi toog a ceeb ceebi suweer la ñu toog uh, ceebi ganaar uh, ak yàppa um, tooga ba rek may dikkandoor may eh, njaboot gi yëkkal nañuy daal ci loolu lañ nekk. waaw fi mu nekk toll nañ ci bi eh, ñu ngi suusal maalo yi. ngeen suuf. ci kanam tuuti rek ñu suuf maalo yi yaa tey ñu fekk comme ni nga ko waxee nga ne ceebi suweer ngay togga muy benn ci ni suweer si ñu ko gën a xamee waaye comme yow si bisi julli nit ñi togg lekk yi ñuy togg tàmm daal dafay uti ah, yow lan moo waral nga tàmm li nga xam ne mooy ceebi suweer xam nga ci biir weeri koor bi